gile, usan le gile, gile, gile njay. Gile. Ouais, ça c'est le national comme ça là. life. gile, gile, gile. Oh. Kutsa le gele. Le gele, gele, gele. I did it. Tëg live matinal salaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum siyaar naa leen yéen ñëpp si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm di naan am jàmm si barki Seydina Muhammad hmm. salaamaaleykum asalaamaaleykum char naa leen char naa leen ñëpp ku si nekk di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm di naan yàlla na nu yàlla defal jàmm nu commencé waxtaan bi tey si bismillahi rahmaani rahim pare ko si alhamdulilahi rabbil alamin comme nu ngi koy defee saa su nekk naa leen am leen jàmm amandoo jàmm am jàmm si jëmm yàlla sunu borom be mag ak barke am naa leen bismillah bismillah bismillah ah eh, eh, eh, sa mbokk ñuuxiti tey moom journée saboté la quoi voilà tey c'est le journée saboté quoi dama publier photo xam nga mbokk ñuuxiti di siisu commentaire yi mel ni tuxusu buñ saañ ba réer gaa yi di jooy ki wax ki nangam lu nekk nu dugg si iPhone 11 de andi coow li iPhone 11 Pro tit tit tit tit tit tit xaw ni ko iPhone 11 Pro dina def dégâts ba toll nii ah, waaw xaw moon ni ko iPhone 11 Pro de waxuma la yàq kër de mais dina tas sax xolol tarixa dina yëngal tarixa le. c'est impossible de poser des questions maintenant au Sénégal ou bien de montrer quelque chose ou bien de s'indigner contre quelque chose c'est maintenant difficile Sénégal on a même plus son opinion wala gis dara wala s'indigner de quelque chose wala rek soulever ay waay ñuuxiti ñuuxiti moom ngeen du gars yi génn nag xolal à au galop katakat katakat katakat katakat katakat kat yegg si waaw léegi lan waaw ni nangam waouh mais c'est pas méchant c'est pas méchant sëñ bi am iPhone 11 Pro de c'est pas méchant dara nekku si war am comme ay moroomam nak. lépp ak lépp mais c'est seulement pour vous fàttali ni que nag ah sëñ bi ngi dund de moo ngi lijjanti bakkanam yéen nag yéen am na leer na mooy gaa yi ngi si alcatel yeeg Nokia yi alcatel yeeg Nokia yi ba léegi yéen ba gën a xam eh, double plus yi chinois yi nga xam ne que da nga koy jënd sax boo ko koo def xoolal sonnerie silence yi nga koy def day vibre yow sax fu nga toog ngay vibre téléphone bi day sonné di vibre ngay vibre non c'était juste pour ñaaxaat leen ne leen ni que rek xam euh, pendant ce temps ñoo euh, booy Basse ngi pendant ce temps boy Basse ngi génnoon di sa mère c'est une belle toog mais tech mon ngi nous bakkanam c'est tout mais j'en ai eu des retours yo comme ne ni que nee naa la damay ree ba daanu si suuf laa lay wax damay ree ba suuf waaw non yéen moom ak nii yow Moussa yow dangaa kii yow moom hein? léegi nee na ma lan ay waxu lan sutura waxu réew waxu teggin waxu yar mën na leen mais mag bu réew ak xale bu réew du ñuy mën a def mag yu réew ak xale yu réew ñooy ànd mag yu yaru xale yu yaru ànd su suñu demee ba nu am ay mag yu jaaxaan di saw ba pare ŋaang nag xam nga ni ko booboo dàq léegi nag su suñu ŋaangee balaa saw bee wàccaat du ñuy tombe si yoon bi tamit xale bu ñëw foog ne ni que fii wanag la moom tamit mu tàllal cuccum commencé di saw rek nu mixé ko saw bi di wàccaat ñoom nu boole ko lépp naan wax gi jeex noonu lay demee parce que lu tax sëñ bi vrai doomaraam la seen xalif général boobu noonu nuy teg naan muxtalaa kii bëgg koo suturaal imbécile la doomaraam la konaar la kacapan la salopaar la yee maa ko wax bam fi toogee démb raconter sa merde sur sallallahu alayhi wa sallam yéen ngeen ñëw nek fi ngeen bëgg ko aara lan la dafa saga tous les sénégalais mu am ñu mu mag am ñu ko islam magul si islam am ñu ko si jiitu am ñoo xam ñoo ngi ñëw mu ñëw tok se branler diakarlo à des milliards parce que lu muy wax ça ne s'arrête pas au Sénégal quand tu parles jusqu'à endosser le le nom de l'islam sur ton dos l'islam n'est pas sénégalais hein. l'islam ne s'arrête pas au Sénégal l'islam est dans tout le monde entier en Chine Australie faut États-Unis donc c'est valable à tous les musulmans du monde parce que tu parles de l'islam et l'islam n'appartient à personne là où tu viens un un argument, tu racontes ta merde tu insultes tous les musulmans et tu dis que non on va pas te remettre à ta place tu racontes de la merde Sénégal dégg ngeen leen wax duul lan lay wax da ngay duul Sénégal lolo fi de pa branleur yi nii bëgg di amerde nit di faire la malin naan ay souture ay cër amu fi ruux seen ndey ba mu waay déggoo leen ba entre parenthèse sax yàgg ko nee le man sama famille laa ko commencé sama famille laa commencé du roqos sen lu bon bobo gëna dé bala di gën motax ma def fi entre parenthèse dal di dellu si waat encore sa subi balé wa touti sogu continuer samay wax sama biir famille dégg naa si nag ay nit ñuy yóbbante naa non famille Ndiaye ak famille Seck nee neen oh non nga génneenu say wax comme que yow nee nga bëggoo bàyyi wax gi ma ne leen nag seen ndey seen ndeyaati ndey déggoo leen ma de famille yooyu noonu mënoo leen ma see génnee sama maam de see bokk muy daw sama deret dama see am paar nu ngeen si amee paar su ngeen di amee ku ngeen di génneeloo si leen ngeen génnee ndey seen bopp yéen yéen a ngi comprendre naa fekk yu bon ngeen muy ba si maam nijaay tànt ak bàjjen yéen yem naa fekk yu bon ngeen ku si yëkkati téléphone am woote daa am tolof tolof suñu nee jug leen nu dem fii ngeen nekk fi di ndaaree di naa ay markatu bun ngeen que sa soit nag la dernière fois kenn si yéen di jéem am lu muy wax di dugg sama kii j'en ai give a fuck ni diw tant diw laa si boole yemal lu tax ñeme woo leen maa woo ngeen koy jaarale si ay ruq pour mu yegg woo leen ma direct su ngeen amee lu ngeen wax ma fàttali leen seen démb wax leen seen ba pare xorom seen cottu ndey défaillant yu bon yu ngeen doon léegi on avance nag on continue léegi ni wax eh ñuuxiti tëb ñëw tax fi di tepp di am na ñuy évis am esquiver ah non wa yow da nga algu nga yak, say culture yow moom nga ñak si lu nga jàpp Faté nga léegi da man la leen yeen duul Yeen vous êtes qui vous vous prenez pour qui hein ngeen créé fi sen doul tek fi douli ne ñeppay nangondo duul and ci si duul di doulondo di dem duulunu duul ya doyna. duul ya doy na su nekkee duul yi mooy sunu emblème su nekkee duul yi moom mooy sunu kii su nekkee duul yi moom daal leen war doon toog continuer ko xam leen ni ko duul yi fii lay yem duul ya jeex na duulkat yu mag yi tey la ñuy jël seen retraite muy paa yeeg mën a duul yu sonn yi tey la fii la retraite bi di ñëwee noppaleku leen seen i duul yi neen di ngeen ko géral seen bopp te duuloon doow noog ñeen te du leen conseil on ne conçoit pas ça leen si jàppale loolu si yëpp na ngeen ko def seen bopp na ko def seen bopp xëy fi naan na yow fii nga judd fekk fi gaa fii lañ judd fekk fi duuli jëmewuñu fenn yóbbuluñu leen defaruñu leen tey leen gën a sonn ko dem kom boog duuli dinañ ko xoolaat ku mu naqari nga dee allez-y tous vous tuer loolu moom soo ko na ngeen si pepa allez-y tous vous wax ba mu neex ñuy wax ba mu neex nag Eh, gars yi ñëw toog fii sooy wax nu naa dañuy jéem a xool ku ñuy menacé ku ñuy wax léegi nag xam nga fan la muurite yi baa leen mujjee leen nee na dañuy xaste noonu de saaga nee non saaga ba sonn nu poser leen question mënu noo tontu nu wër saaga juróom-ñaari weer ñoom saaga nañ ba réer si seen i biir saaga en fait doomaraam yi ñu leen laaj question nu réer si question yi question yi jaaxal leen ñoom seen bopp nu créé seen ligu saaga ñëw ba réer si seeni biiru saaga ba tey question yi réponse yi ñëwagul ñoom seen bopp nu jaxasoo ba ñëw toog nag jaaxal ma ko leen mujj léegi dellu neen léegi si léegi xaste si wax nit ñi léegi mooy ñu yaru ñu yaruwul ñu yàlla delluwaat neen sa base bu leen di woo de fu leen di woo foofu leen ñëw bëgg a ñun bàyyi y'a gi di ngeen ko jaamu wala nu ñuus leen arrêtez de faire les cons tay lu arrêtez de faire les cons con wala da di con con lu nek ah, ah, non on va vous C'est un calife général ab imbécile je imbécile dooma la dama ko wax sais pas ku mu nakari matal sa bakkan defal ni ko sa on s'en tape moo fi toog raconter sa merde sur sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam moroomam la islam moroomam surtout sallallahu alayhi wa sallam moroom eh, fu ma ko fu ma ko tëjlee chapeau ba mu ne su duggoon fekk yàlla toog nii Serigne Touba toog ni mu rom fi yàlla dem si Serigne Touba laa ko ne nag tey nag xoolal sa caaya bi laa siy def dix mille yamb ba pare nag di leen tëggal si biti xam nga du def caaya sa du def sa caaya bi dix mille yemb ba pare yor tama bu ndaw bi nag taxaw sa wet nag di la ko tëgg dong dong dong dong ngay non sëñ Moutala tey lay fecc ba dootul fecc dina génn tuub ko billahi wallahi waxam yu bon yu mu wax dina génn tuub ko wa ilaa man ak moom ba muy sàngoo suuf kuy xorom ndeyam ba pare di ko fàttali ay doomam loolu bu mu si sax sonn loolu kay moom maa leen ko dig bu leen si sonn jarul sax ngeen di dugg feki nangam yaa de ay jaane give a Comme qu'il se fout de la République, il se fout des gens. Il va avoir un boy qui vont se foutre de son tiers. Maintenant, le corps, il y a le tout ken boyo mal khiyam yu lijenti. Fi len ko lijenti ci kaw fi. On s'occupe de ça là. Là, fi len ko lijenti. Suñu démé ba feulé, on va parler des choses. Serigne Mouta dina taxaw tout waxam yu bon ni mu wax yom yep wa ila kharam si mom du doy. korom si du doy tarixa bi ñëpp la ñuy xorom de la tête ay doomaraam ngeen ñu koy sauver ñuy ñëw di ko jéem a waxal ñuy jéem di ko jéem a taxawal ak ñu nekk si ginnaawam ak képp kuy waaju piip sa piip nga ko sa ndey déggoo lu nu wax de lii lii yéen am ngeen si problème am ngeen si problème gu mat problème yéen mu laaj leen question ngeen foog ni que di ngeen si gën ces 33 femmes là vous croyez que vous allez diversion vos 33 grand-mères là fu ngeen ko lijjantee lan la islam wax si 33 femmes lan leen wax qu'est-ce que l'islam dit sur 33 femmes surtout trois de même père et de même et une demi muy quatre lu naan inceste voilà loolu lan leen wax c'est lan la islam wax si ku deete te kenn miiraasuñu ko sangoonu ko voilà loolu lan leen wax lan lan leen lan la leen wax mooy lan la islam wax si si euh, nga jumaa bu am cimetière jumaa bu am cimetière lan la leen islaam wax si jaakaaloo ay garab di jaamu garab di sant leneen lu dul yàlla waaw lan la leen islaam wax si lool si sant doomu aadama bàyyi fi yàlla si yooyu lan leen woo ngeen bëgg a wax gi tourner wax gi saaga nit ñi wëlbatiku ñëw léegi pour lan commencer xaste yéen ngeen foog ne di ngeen si génn maa leen ko dig maa leen ne trois cent soixante cinq jours la lii su ngeen si génnee man ma bàyyi dugen ngeen si génn dans yotaa di ngeen tontu ni ñi bàyyi ngeen defar sen toogaay wala nu news leen lolu bu len si sonn nous sommes avec vous nous sommes avec vous on n'est pas fatigué on n'est pas fatigué ne yeen yéen bàyyi chaque jour ñoo ngi fii yéen ngeen nekk fii di di nangam avant ñu doon rafetal ñuy rafetal fo nek sëñ bi dina dégg wax gi defaru xam nga jema xol xool mi muy defar woo ay nitam defaru mais on s'est rendu compte que ni non non ñun doon rafetal une on nous prend pour des cons de nuit nit ñi dañ leen di jox li nous bëgg a jël sa loxo bi yëpp yóbbaale sa bopp bi il croyait qu'on est con qu'on est stupide quoi nit ñi man damay rendre compte que c'est au plus en plus que ils te ils te considèrent pas en tant que ce que tu es ils te prennent pour quelqu'un de con de stupide ñuy wax parce que tellement ni ko dañuy naxtaan ils croient qu'on est léegi nag leen woon ni que Baye nous sommes Baye nous sommes loin de dormir nous sommes loin de roupir yéen yéen am ngeen problème Mourtala imbécile bu mel nii hein chaque fois suñ ko woo tàllalee micro il raconte de la merde hein walbati ko ñëw toog ngeen daal di ne kenn du si wax quoi yéen yéen ay nit yoo xam ne ni que yéen yéen ay def yéen a baax lu ngeen def lépp baax lu leen ñeneen yi def baaxul keneen ku la neex ngeen dii ngeen keneen ku la neex ngeen lekkaloo ko yàpp xaj puubloo ko fii sawloo ko nële mais yéen daal ok acca suñu demee ba kii ngeen toog nag bëgg léegi nekk fi di di jaay les misérables quoi waaw kii moom attaqué na yoonu islam murit du islam da ngeen di duul wax si mourid ne veut pas dire attaquer islam de lu leen ne kaay leen islam si bu ngeen ne ban islam ngeen ne ban islam ngeen nuy wax et de quoi vous nous parlez parce que c'est islam bu ngeen di pratiquer on le connaît pas ce n'est pas dans l'Alcoran ce n'est pas dans la rien même pas dans la Bible même pas dans la Torah amul ben téré bu yalla tek bu nu meuna a dem soqandiku génnee seen islam bi à part si secte franc-maçonnique nu wax len ko ngeen nekk fii di faté soo di teub di dal lu len wax dafa clair arrêtez de faire les cons loolu la len wax un plus un égale deux ku dé nga waay ñii moom na nit ñi waay what the ñii moom na nit ñi islam islam islam mel ni ko ñoom ñoo ko moom soo waxee rek nu bëgg naaw mel ni ko ñoo ko moom seen baayoo ko moom ba islam bi islaam fekkeewu nu ko seen baay Serigne Touba sax fekkeewul ba islam bi islaam ba islam di ñëw bay tegu léegi gars yi ñëw bëgg ko kidnappé daal toog si nosu nit ñi ne daal kenn du si wax mel ni ñoom moom nit ñi moo ni moom moo leen suñu nosi du ñuy wax du ñuy wax lu islam bi waaye ñu nu fi jiitu duñ koo wax li jënt ko ba mu toll si ba ñun ñu jot si duñ siy wax li jënt ko ba suñuy doom jot si suñuy doom wax li jënt ko ba suñuy sa jot si kenn mënu si tous kenn mënu si tous voilà ay imbécile rek nekk fi ay retardé de la pire espèce comme ça ay doomu xaraam nekk fi ñoom suñu jugee saaga ndey nit ñi ba kontaan suñu leen saagalee seen xale fii nu bëgg fee mer tourné di wax ay waxum yar ay waxum kii ay affaire de dug yéen ngeen def seen i kii manko dugg fu nekk saaga ndey seen moroomu baay am na sa ñoo ne saaga neen ba xamul ndax saaga neen seen i baay Eh? am na si ñoom ne sax saaga na ba xam ndax saaga nañ seen i nijaay ma am naa si ñoo xam ne gis naa leen ñuy saaga te xam ni ko seeni i nijaay sax ak man ay gaañ la ñoo ngi si live bi yor ay compte tamit di suivre ñuy saaga bay saaga seen propre nijaay yoo xam ne ñoo leen yar billaahi live bi pare nu ne ma diw bii di saaga est-ce que xam nga ko ma ne ko non naa mu ne ma diw lii maa ko yar maa ko ngénte sama kanam la keeki nànk bul ko déglu kon la barki démb la ma woo fii di ma laaj weccit moo xool ko ma xool ma ree mu na ba bu xoolal du benn ñaar bàyyi dinaa ko woo wax ma ma ne ko jaru ko soo ko wooy wax ak moom da siy gis bopp te après yow sa bopp yaay yeblu sa bopp parce que booy dof nañ dof boo xam ne ni que instant bi ni su dul loolu noonu respect bu mu la joxoon tem mu yeblu la bàyyi ko rek ni ko seetaan à distance toog di ko xool ba moom mu yaraat boppam toog su boobaa nga yëg si yi fàttali ko lu mu fi nekkoon lépp dina boobaa dina rus toog billaahi ñu bëri saaga na fi ba saaga seen i propre nijaay yu leen yar billaahi wallaahi wal kitaab su nekkee damay fen lu may wax yàlla bu ma waaye yàlla bu ma àjjana gis yàlla bu ma àjjana gis wala leneen gis combat bii nu nekk combat bii nu nekk kenn mënul say génne toog naa ay policier woo ma wala ay gendarme woo nen ma fii won ma tenue am na si sax booy boo xam ne militaire la nekk si xaw ma ban front nekk di ma won ay tenue dinaa daf may menacer di ma won ay arme naan ay non ñun ay soldat leen rey nit ak ki nangam waaw sëñ bi su ngay wax nii nangam soo ko bàyyiwul dinañ la faat dina la kii ma xool ko ree ko ba daan suuf toog tamit même façon ay soldats tamit woo ma ñoo xam ne naan ma bàyyi on avec toi déggoo lu ma la wax de nekk ay musulman foo dem kër nit dee bañ da ngay dugg kër nga gis ñi nekk tijaan nii rek moo tama ma ne la combat bi dama see dawul un yota un yota ku ma fi saaga sa biir kër xamal ni que am na koo xam ne moom mooy supporter parce que lu may wax neexu to romb kër mënoo dem gis ñëpp nekk ay doomaraam y a des gens su jàppale ko donc nag man loolu loolu ngeen di wax comme toujours ngeen di kii nee naa leen ce combat ne va pas changer d'un iota dangeen di sonal seen bopp da ngeen di sonal seen bopp Mourtala nag moom waxam yu bon yu mu fi génnee wax ko ba pare toog dina génn au grand public jël tuub jéggal wa ilaa xorom si du doy déggoo lu ma wax de xorom si du doy na dorénavant dinaa xorom digg waaye waxuma sa digg mu bu ndexam de mais de non Mourtada su ma génnee suma moom gars yi dinañ xam ni que réewande amul day jaay réew rek en tant que njiit kilifa yow ngay jiite wala wane yoon wala def yoon nit ñi topp sa gannaaw wax waxu nit ngay génne di con con c'est sur lui que je vais me défouler comme un con. billahi dinaa toj cottu ndeyam ba mu xam ne ni que réewande am na te du mag moo ko yor du mag mooy réew du mag mooy réew dina delloo si boppam. islam dina ko bàyyi delloo ko fu mu nekk ba ilaa mu dem ñuusu fële dem nuuru buuju nuuru buuju boppam mais nekk fii bëgg a de nit en tant que xalif porte parole ñëpp toog xool la jàkkaarloo nga nekk nga yor toute la communauté jiite ko tu te permets de te mettre devant les gens raconter de la merde quoi ça va être clair. Père Noël dafa yëpp nit ñi quoi ñi yëpp nit ñi y a des choses yoo xam ne ni gars kenn du ko digérer man de duma ko digérer suko ko àdduna mbërgal këpp gars yi digérer man nee len ba son su yexé ba si man damay bañ waaw duma duma nangu ne toog fu nek di ndamo nan doomu julit la di nambo di ndamo sama élage di wax di nan dama bëgg yonenté gi ak luma kacapan kacapan sama kacapan bop sax dooma ramé sama doma ram bop lu bon luma muntu munti def suma paré damay wëlbeutiku tok jéggalu xamni ka kat nelaw ba seytane yobuma juum naa xaaral ma defaruwaat pour mu bañ ma daraat ñëw tuub jéggalu ñaan suñu boroom mu xool nu muy def mais non ay nit ñoo xam ne ñoom nee nañ au contraire ñoom du ñuy changer islam bi def ko ñoom nu mu la neexee que l'islam c'est une pâte modelée quoi ñoom ñooy toog ñoom daal lekk leen wala gërëm ñoom la ñuy gërëm ñoom duñu gërëm yàlla ñoom ñooy islam ñoom ñooy kii mais à un moment what the fuck ruux seen ndey leen leen wax mu taraa doomaraam la Nous mu nous si kii bi la ñu ko fi ay ram len ay ya ay gen voilà au carré point bàyyi len pa bi son Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Ba Sénégal ni Serigne Touba su Sénégal Sénégal Sénégal, le le le plus fatigué du Sénégal dans tout le territoire sénégal, nous bu le cadavre le plus fatigué Monsieur Cheikh Bamba un cadavre fatigué bay serigne touba sonnu na sonal ngeen ko billahi wallahi wal kitabi yen amel ngeen ak bo xamne waxuma yalla de mais serigne touba ci bopam su ngeen ko ko fayo yalla du ngeen ko gis bala di parce que nit koku jëm gogu amel ngeen ko ak doulal ngeen ko fenal ngeen ko Duga ngeen ko lu mu dégg ngir yeen lu ko tek ngir amel ngeen pa bi ak do marami. ba engen ngeen ne du ngeen ba mais yene kuyon. yéenay kuyon yàbbi leen ngeen ne du ngeen yàbbi paa bi quoi nga nii dëmm yu bon yi yàbbi leen paa bi cent ans wala forox mais corbeau et renard jusqu'à quand ngaa fromage bi wadd what the fuck cent ans ngeen di ko duul di duul moom mu dem ne aw ma njaboot jàppaleen sama xasay ngeen di duul di duul yéen mi bàyyi leen paa bi Cheikh Amadou Bamba sonn na ba tey néewam kenn mënul wax cimetière am kenn xamul fen yaa ngi continuer di dem gars yi di fen njabootam kenn xamul sax kana bokk ku bokkul ba tey fen baa ngi dox ngeen topp paa bi kenn xamul fu ñu ko suul nu mu suuloo nu mu tëddee ki kenn sonn na de sonn na te gars yi nee nañ doyaluñu nag et ils sont pas prêts à laisser amal ngeen ak sëriñ Touba. yéen murid yéeg yéen ñii ñëpp la xaso su ginnaam te billahi su ngeen ko ko fayulee waxatuma la ak yàlla ak keneen de mais musiba bi moom foofu lay yem parce que paa bi sonal ngeen ko lu ngeen ko waxal lépp kenn xamul fu mu toll te waxaloo leen ko seen i maam góorgóorlu woole wax ko seen i maam sañoo leen ko waxal seen i maam papa yi jàmbur wala paa bu dem ba toog ngeen ko jël lépp sëf ko teg ko su am lépp ngir doomaraame seen doomaraame bopp moo leen si yóbbu lépp seen doomaraame bopp lépp seen doomaraame bopp yàbbi leen paa bi paa bi doon julli di natt asaka di woor di jaamu yàlla maanaam di topp alquran comme boog nag yàbbi leen ko ngeen góorgóorlu bàyyi seen fen yi su ngeen bëggee dara da ngeen di def ni moom góorgóorlu am mer da ngeen nit ñi yoon waa kii nii nangam maa ngi toog sànq encore benn doomaram le même connard yónnee waat ma encore liste yónente bi naan ma waaw yaa mi booba léegi di wax si eh, kii wu yónente bi kii kay Serigne Touba xoolal liste yónente baa ngi nii xoolal ñaata jabar la amoon ak ñaata doom ma xool ko ma ne yow yaa ngi yor bi yaa ma ko partagé xool te liiroo ko kon liiroo ko kon yow yow yaa ngi ak affaire moo ngi noonu liiral xul leen say bët nga comprendre treize jabar ok comprendre dix yi fan la jóge ces compagnons qui sont tombés sur le champ mu ne ma ne ko boo xoolee les compagnons qui sont tombés sur le champ mooy lan mooy nit ñi moom dem xeexi ko fan nu dee kii bi seen jaboot mu ñëw mu dencal leen seen mu ne waaw ma ne ko boo ok mu ne ma ko pare nga si loolu mu ne ma ne ko léegi compter ma doom yi mu ne naa ma ne ko compter nga doom yi mu ne ma ko xoolal fu doom yi jox na ndax la xasoo naak ñeneen mu nek fa di tourner di ma ay waxu kii ni nangam mu ne ko bay gis nga ci domi yep nak ñu ci bari kenn agul à l'âge à l'âge majeur kenn mo ci xawoon sax sori te bu mu gaañoo yonent di ko joy moy Ibrahim mu ne mu ay ay ki nangam mu ne ko bok pour wax ki duggu sa bop parce que tellement que vous êtes con jangalu nu len sen diine waxu nu len islam góorgóorlu len sey geustu jéemoo len xam vous êtes dans une connerie rek di dox di dem 13 jabar la amone 10 yep daf ko daf len takkoon pour denc len te ba tay mo ngi am denc jabar yoo xamante ne noo am doom doom seen jëkkër gaañu su dul lool noon ils vont mourir te nee jigéen suy dee daa wala nekk si ginnaaw kilifa loolu moo tax ne comme que nag yonente gi nag il s'est senti d'une mission moo jël seeni i jëkkër yóbbu ba ñoom ñu ñàkk fa seen bakkan si combat boo xam ne mooy la donc c'est de son droit et devoir mu ñëw mu denc njaboot geeg xam nga soxna si mais pas pas mu ñëw di karaateeg ñoom chaque guddi ba mu ñëwee talul di karaate su dul loolu loolu noonu mu mu mu peuplé tamit mais dafa ñëw denc leen si yoonu islam di leen toppatoo di leen kekki nangam mais karaté pël bi moom loolu leneen la woon ñu mu ko doon defal ñu mu ko séqal xam na nu mu fa demee mais con yi comme que du leen ximbali du leen di bàyyi ñuy nelaw ak di óbbali rek léegi nag ñoom ce son ces deux rapprochements yi ñuy jéem a def moo tax ma ne leen mu taraa du sonn mu taraa du doyal si samay ki dinaa déggool ma teppi ko teppi ko teppi ko teppi ko ba fu mu toog muy nes na si mel ni dëwlin gu tàng gis nga dëwlin gu tàng lu teg ba mu naan tep tep tep tep tep tep tep noonu ay toj lu bonam ba mu xam i va kii dina jàkkaarloog les gens veulent venir s'excuser il se fout de la gueule des gens il se fout de la comme que mooy teg bi moom mooy def musiba nit ñi di ko topp moom la ñuy xorom mu jégalu nit ñi topp si jégalu bi point jeex jeex na on oh, y a plus ça parce que du ñuy wax gars yi di saaga nit ñi c'est fini moom may teg mooy wane exemple moo fi nekk di wax wax konaaram Masare tëll fële ne ni ko Rabio Pa Mor Mbaye tëll fële ne Rabio sa nootu gaa Misiri xaw ma lan tëll fële ne Rabio gars yi après booyu ndaw yi raakaaju boobu ba léegi ñoo ngi wax nuy saaga comme que nag mooy loolu léegi moom teg bi si boppam la ñuy taj cottu ndeyam mu ñëw mu jéggalu après su ko defee booyam ñëpp tamit ils vont encore suivre la même ligne su dul loolu noonu ça va partir en catastrophe kii iso uni ñi ñoonu moom ñii ils vont voir de quel bois on se chauffe de la République ces imbéciles se foutent de la République quoi se foutent de la République quoi Omar Fall sa waay sa yaay nga naan ma arrête sa saaga yi sa saagawu yaay sa bàjjen say juróom-ñaari bàjjen seen saagawu wumpaañ yaa ngi dégg lu ma la wax sa maamaati maam ñambaasa mboog yaa ngi comprendre sa ñambaasu maamaati maam eh bu ma bu ma wax loore naan maay waxu kii ki nangam dugg na fii ba seen sëriñ bi di gën di saaga nii da nga kaa ne na xool waxam na xool lu muy wax ak lu muy kii ngeen toog mu raconte sa merde mu war ba nit ñi ñëw toog fii ngeen naan maay ay kii de jour en jour gën di dof on a pété les plombs parce que sëñ bi leen gis mu wala noo waxu yàlla wan nu fa yàlla muy diingat yàlla looloo mu si jaaxal sëñ bi ma waroon woon yoonu yàlla def ma ma am yàlla ne am diine moom leen gis mu ñëw di diinget diine di diinget yàlla ça part en couille on pète les plombs waaye yow naan ma ay waxu kii ki nangam saaga yi yeen ñuy fël-fël seen lu bon ngeen naa ma kii boobu ba léegi ñaata weer sept mois ngeen nekk fi di saaga ni ñi quoi yéen ngeen neew naa lii marathon la du sprint da ngeen yéen danoo ne prix rek ngeen bëgg saaga tout le monde saaga ba réer ba ñëw toog xamatoo leen wax suñu tuur yegg na nag tey nag la ñuy jug nag wala nan la affaire bi du sprint du sprint mois ñoo ngi topp ak yéen mënoo leen tontu saaga saaga ngeen léegi réer ngeen léegi nee ngeen nag da ngeen nuyu nag fii le dofee parce que sept mois amuñu sa amuñu réponse ay saaga leen am on pète les plombs on pète les plombs fii la ñuy toj seen lu bon ba di ngeen respecté yéen xaar leen te tey lay gën neex tey lay neex si dégo Père Noël la ñuy commencé di watal si kinam bi mu bayyi wéxal bi dinañ ko ñuulal ba mu ñuul kuk billahi di daggal o oh, c'est fini il ne mérite pas yar sikin ce vieux con là ce lâche mérité wul sikin sikin da am ñuko ko mérito pa bi lu ko wala xoj pogné ko clé 14 kottu ko ba mu taxaw jël nday lam wat nday sikin di ba mu set mérito ko ñuy wax mu naan wéx weexal ñuulal ndeyam ba mu ñuul kii di doomaraam kii di doomaraam ngeen naan may waxu kii sa vieux larbin la nga ko wala moom sa waxuma sa o o sa mérito nga ko wala wat ba mu set ko wala jël wot ko ba mu set voilà naa may waxu kii amul lool de amul loolu ñuy dafante ba mu neex dafante ba mu neex naan may waxu kii defante amul ay noppee ki nangam de affaire bi nan la da ngay jaay kon ma lay seetaan nga tëb ñu leen doon laaj ñu nekk fi di tëb di yuuxu di saaga léegi comme ko xoox neen sept mois xoox neen parce que seetlu naa leen trois ou quatre derniers maintenant sax ne cinq derniers jours yi amatuñu argument waxatuñu xoox neen ñoo ngi daw yo ngi roche parce que ça gi na que wax gi ils tourner le débat ñëw lo wax ñu naan la waaye saga, yo yow yaruwoo yow eh, eh, eh, vous n'allez pas sortir je vous l'ai promis je vous l'ai promis on ressort eh ni asa asa on rek du ngeen ci genn li du ngeen ba ay te wax gi te vous n'êtes pas fort non non non non non sept mois ça à notre tour à notre tour on va vous montrer comment on insulte on va vous montrer comment faire l'impoli parce que c'est baye de di saga islam dinañ full full de gëlëfal ndeyam moo sikkinum ngeen naan ma ay waxu na de boy bas mu noir fumé jaakaaloog eh mi yëpp ndey nit ñi man di man sol ay noir fumé tu parles à la population nga ñeu sol say noir fumé jàkkaarloo gaay di konkon ku mu yëpp loolu Mourtala moo def déclaration bi pas ay porte parole bas il a quoi à dire aux gens n'a ka se faire foutre Mourtala ne respecte même pas sa communauté après tout ça nga génn def déclaration sur lu toll nii su lo xamné on l'a déclaré deuil national doomaraam bi mu waroon génn waxal bopom, génnul mu yónnil nu boy Bass te démb dem ba ne waxu problème mu xaalis ay problème mu kii wax lu ñàkk fayda booy bas a ngi foon booy bas waxul mu taraa waxal boppam imbécile waxal boppam la kii nangam ba booy di génne di grève mu talaa génn waxal bopp di génne génne grève di wax de si kër gi suñu loolu dinaa yónnee samba booy léegi tey pour nga wax nit ñi toog nga yónnee nu sa doom a xaraam mu sol ay noir fumé ñëw jàkkaarloog ñun te keroog tamit ba muy toog di naan su gisee Serigne Touba gis yàlla mu romb yàlla dem si Serigne Touba moo ko waxal boppam imbécile dina génn wax ko dina génn tuub jéggal wa ilaa nu xorom dëgg la fa dem point barre plus de respect vous voulez vous foutre de la gueule des gens plus de respect affaire yi plus de respect seen mam. naan ay affaire oo kii nangam ñan bëgg plus de respect Moutalafi Toc fi tous les musulmans tous les sénégalais musulmans c'est pas sénégalais on va réfléchir ça sur la tête des gens nee wax en beaucoup de langues nous murit guerre Nous faisons que nous gis ay Nous fa Nous bon nous on arrange la pente avant nous nous mais nous naa la nous nous vidéo en arabe traduit ko en anglais traduit ko ay làkk yu bëri infesté waat ko si réseaux sociaux yi billahi wallahi balaa atum lëmb nga gis nu ñëw faj problème bi léegi léegi léegi léegi mais léegi ñun suñu biir ñuy wax di kii dooma xaraam yi ñëw di naan ay affaire de kii il se fout de mu tanaa toog fii raconte bokkaale ay bokkaaleem raconte sa mère pas que plus d'un ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu dëkk fii di am na ñuy expliqué am ay dooma xaraam yi ñëw di toog naan ay yaay réew yaru danoo yaroog mag ñu yaru yi yu réew yi saaga sa ndey loolay dëgg c'est fini tout cela ay mag yu imbécile mag yu waay yow mën a bëgg yomb toog si dundee nit ñi tekki konkon lu daf-daf téye nit ñi en en lees naa leen ay oh non da ngay yaru ay kii ban yaru yaru fa lañ koy taf yaru fa lañ koy kii yaru ñu koy fay dépense day fay facture allez faire foutre yow seen bopp yaruwunu jox fi di raconter seen merde yéen ñun ngeen bëgg a yar vous foutez de la gueule kii foutez de la boule de kii xaar ah, rek naa mooy kii affaire yi mooy lool de affaire yi mooy lool nit ñi duñ lay tooñ ba pare nga fayu wala nu tooñ la nga di wax yow nga pété les plombs gars yi génn fi bëgg turné tourner wax gi nag bëgg kii man nee man Quel monument de Je m'en fous de, des états d'âme de certains larbins là. Parce que moi, là, je le dis clairement. Je ne passe pas à demi-mesure qui n'angam. Moutala, il se fout de la gueule des gens. La communauté mourite se fout de la gueule des gens. Nous, Cheikh Modou Karaake, c'est des imbéciles. suñ ko waxul te dee c'est des connards Modou Kara démb nee na day bind ay bëy di bind ay kii moom yow jàngoo jongoo ah hein, hein, ustas ba xamul xamoo khairun wala khasiran tok raconté te calamité ñëw tok naan mom moy bind ay ay affaire ci ki yàlla geeg di kii yow dul duul ko wax merde wax bi su jotté nu wax ko du koy waxte dé wax bi su jotté wax ko du koy waxte dé waye top ben wax bo xamné ni nii ko fi muy mag nek fi di sonal nit ñi gaa ne kenn du ci wax yene nyan, ñan yene ñan ma lool la bëgg xam dan ngeen defalal islam ba yeen yene tay yene tol nan kenn du wax ci islam wala kenn du ko nodante wala kenn du amu ñu expliquer ci islam bi yene ñan dan ngeen ko defal imbécile yu mel ni quoi ah non yaru jamono ji yaru amul de yaroo de yaru mo de parce que da ngay ñew yaru gaay di profito si sa yaru bi bëgg la day fi baay suñu demee ba ñu yeb islam parce que islam dañoo jël jaas yi teg ko ñoom Seydina Omar ñoom Aliou ñoom ñëpp ñu jël jaas yi roof ko na leen teg ko andi jàmm boobu ba léegi ñuy teg jàmm di naxtaan looloo tax nag gars yi nag dem nag ba jël jàmm gi teg ko ab kon wala ab ragal bëgg toog suñu bopp yi di nu menacer ak di nu saaga du ragal de c'est parce que danoo toll si benn niveau si suñu gëm yàlla danoo toll suñu benn niveau si jaamu yàlla danoo toll benn niveau si spiritualité moo tax nuy dox ñu am yenn ñuy moytu mais na comme nu ngi koy waxee su ngeen nu toppee ba nu sës nu walla ni ko lawoon fawoon lawoon fawoon tey leen gën a mën a nokkos tey leen gën a mën a duma tey leen gën a mën a defaraat ay dooma xaram comme boog wax gi nay leer ndaxtaa nekk fi di négocier. nek fi di naxtan di négocier di jëm éclair éclaire ngeen foog ni ka ay ragal leen bëgg dox suñu bop du fi jox Moussa foofu la ñew hein départ bi commencé lan la ko tek naxtan ka fré mbalak rétan ki sandi xéer ki nangam comédien wa mon comédien ki comédien la ki mom ah la la ki dafa réew kii nu ma fi déggul amul parce que lan il va être au maidan ba ñëwee bëri won ci écran bi ba ñee bëri woon ak kanamu kulun bi quoi yeyeyeyeyeye gars yi ok c'est un clown aca ah, neen saaga ndeyam ah ok le clown nag tamit y a des petits moments yoo xam ne devient vraiment stupide noonu lay doxee rek voilà ñoom su la neexee nu kii nee na ah bàyyi leen fi bii grawul du seen sago waaw ànduna ak seen sago dineen soppeeku ay kii ànduma ak sama sago tamit jàpp leen ko noonu man tamit ànduma ak sama sago ay saa nii on va les niquer ba sama sago ñëw voilà après ma àndaat ak sama sago dox dafa yomb def lu ngay def ba pare ne ànduma woon ak sama sago voilà daa daa waaw léegi comme que àndoo woon ak sa sago léegi ñun tamit àndatuñu ak suñu sago pour l'instant on va s'occuper de ça après ñu dem ko suñu sago si kanam nu ànd dox ak moom. foutez de la gueule des gens quoi imbécile yu mel nii ya ya kini nu saagee ba pare papa lek nene ngeen di wul nii saya est tour heh saya à tour lah lay wax yan kay toog leen foofu rek waaw déggal déggal nyuhir gen génn ale ale ale benda nyuhir génn nee tapet mau ibu wax woi lol de moom du ma duduk kita dëgg amna am ada pas de pas ke tapet ini nak moom kamu noo koy waxee rek ça pa ham nga so faree si fii côté gis doo mana gis lo faral soo faree fee tamit doo mën a gis loo faral côté gee ngay far tàppate kay mbëri wax loolu dëgg la parce que ba islam sosoo ba léegi ñu ko génnoon xeexi jël jaas yi xam nañ leen ñu toog ak wax gi nag bëgg a bokk si islam bi xeexal islam beeg wax ki xàmmee na leen léegi ça dépend de yow nooy nag tey say affaire ba fan la ba fan la say degré léegi yow tàppet moo la kii man tàppet yooyu laay xool parce que ba islam bi moom jotu xeex amee ko ba firaaw nag yeneen doomu xaraam yi ne kii du fi am ah ñu jug xeex xam na leen ñu génn li jënti xam ne leen ba mu ñëw tey jii ba ñu nu jot ko ñu ko jaar mentionné jàngal promouvoir yóbbu ba ñu nu jot ko xam ne leen léegi tamit nag c'est de la même façon tamit jamono ji ñu xàmmee ñoo xam ne doon see bëgg a bokk si mpec pec pec pec saaga pec pec ak ak nañ jéem a jaa si ginnaaw xam ne leen moo tax tàppet rek kay bëri wax lu tax ba heure jël jaas yi dégg nu waaw nu dégg nu ne ñii yaa ngi woo murit yaa ngi woon sa xare ba dar wala ay kii eh, eh, eh, doo leen fa dégg de doo leen fa dégg de billaay wallaay non laay fi taay taay du may signaler doole nag loolu moom bu leen sax son loolu yàgg naa si de am na démb wax naa ne ko nee naa ne instant yi maa ngi si ñetti page yu nu bloqué maa ngi si ñetti page yu nu bloqué mais gars yi danoo foogoon ni que mënoon nañ maa bloqué suñuy def loolu mais loolu ñoom sax leen di jaaxal du may bloqué lu ba pare daal di yeewu lendemain bi foo ni que live du am nu yeewu gis ma si live bi mu jaaxal leen. noonu la fa demee gars yi duñ may kii ba nga sonn bàyyi duñ maa duñ maa duñ maa ah, wax yow rapport rapport rapport boole boole boole Facebook Facebook Facebook ba nga xam ni que mooy loolu instant gii nii moom maa ngi ñetti page yu may xaar mu ubbeeku. mais dara on toujours laat ak ñoom doomaraam yi doomaraam leen daa leen ma jóge sama place bi su nekkee caméra bi day flou ma dallu sama nekk te dallu sama pukkus bi quoi sama garçonnière doo commencé sorifié au cas où doomu raam yi xeex fi mu ne mooy loolu fexe leen ba bu leen fi xeex nag Ai, ai, ai. Dat is ik klaar nu. Vanessa, bas, waxuma la bas de bas la chien rek moom kese nekkul si live bi waxuma la bas la chien rek de mais ñoom tous les chiens là ñoo fi gars yi taay dañuy koj affaire bi déggoo lu ma la wax de basak karaaraa karaalera xam nga euh, nu koy waxati daaru daaru la mignon karaalera daaru la mignon Abdou Karim le pervers xam nga ñoom ñëpp duñ koy koj de du naat dooma xaraam si tey foog nu déglu ko nu xool fan la dooma xaraam si di fëll tey doomu xaraam bi parle tellement de la merde foog nu xam fan lay fël tey gars yi ñoom kenn du jottali wax gi de ñoom ñooy toog di ko déglu seen boppu kay billaahi ñoom ñooy toog di ko déglu yii doomu xaraam yi moo tey saay du ñëwee ma jurgóot leen du ñuy yegg si rek ma dugal dunq seen noppi jurgóot leen dunq pan yooyu noonu nu melax si ñuy dugg rek ma jurgóot leen jox leen yóbbaale bàyyi la ñoo ngi fiy toog ñoo ngi fiy toog déglu leen rek ay doomaraam mais noonu nag leen wala eh mu leen Mourtalla muy dugg Facebook muy ñëw tamit di jël si wàllam leer na ma ni moo ngi fi Père Noël Père Noël tamit walu fee sori mais wala ngeen ko woon tamit muy jël si wàllam doomaraam boobu noonu na bàyyi kaale bi Père Noël na bàyyi bokkaale bi na bàyyi bokkaale bi doomaraam la na commencé waxu yàlla na waxu nit ñi nit ñi na wax nit ñi waxu jaamu yàlla na wax nit ñi dëgg na bàyyi doomaraam yi loolu leen wax moo gën muy nekk fii on ne joue eh l'âge n'est rien Sénégal on vénère l'âge yéen tey su ngeen demee ba ngeen bëgg a vénérer l'âge bon encore une fois xaale ma defaat encore analyse bu ndaw yëpp yeah Kyle wants me to show you something. What I, I doing some videos later. I don't want this to come inside. I come in. Yo, yéena ngi dégg lu ma andi wax léegi nag instant bii nii moom mooy booy bi sax xaw na maa réeral nan doxal waaw ne saa I ne iPhone 11 iPhone 11 bi eh eh eh lu koy waxti iPhone 11 bi iPhone 11 bi de gars yi dama ko doon wane nii rek pour ñaax gars yi pour na leen ni que ah sëñ baa ngi dund am na iPhone 11 lu ngeen di xaar ba am iPhone 11 mooy loolu noonu mais comme que xel bi ñëwaat na nag léegi maa ngi delluwaat dama doon wax si benn affaire boo xam ne maa ngi ko doon jéem a ñëw wax léegi c'est à propos de âge bi xel bi ñëwaat na noonu lay doxee xel bu naaw dellu si waat ngeen ne léegi yéen âge ngeen di vénérer oh mag ñi du leen wala respecté parce que moo mag. oh no, mag mi duñ ko wala kini ni nangam parce que mag ñi mag ñi mag ñi mag ñi mag ñi ok Yen tay jii nii nu ngeen mak, vénéré mag respecter mag déggal mag top mag jox cër mag ba lu mag wax ngeen ne mag ba magala non la mago amul problème bo légui su nek lu mag rek ngeen respecté lu ancien légui entre islam ak mouridisme ku jitu ku mag su ngeen demone ba ngeen wala déggal ngeen wala jox cër ngeen wala déglu si kan ngeen di déglu du ancien lagi si ñaari anciens yooyu nyari ñaari waknen wax nen islam wax na mouridisme ñëw wax si koom léegi yéen su ngeen ba di kan ngeen wala deglu si loolu booy bii nii nga xam ni ko mooy mouridisme wala maamaati maamaati maamam nga xam ko mooy islam parce que murid di judd ay tarixa jitu muridam ko jiitu murid a mujjee si tarixa léegi nag lan ngeen gëm ak lan ngeen di dox wala ndax lu ngeen gëm moom ngeen di moy lumay wax rek gëmoo len dara su ngeen di dundu lu ngeen di wax da la don la ci oh mag yi dana kii ba mag bu wax lu mu wax wax na deug mag du fen mag du juum mag du don kacapan mag yepp a baax mag yepp ju mag yi ma sha allah parce que tellement ni ko ñonu mag ok fokk ñu deglu léegi deglu len tamit nen delu islam wax na mouridisme wax na ñoom ñaar ku mag kan moy magu kan waxuma la sax ku mag kuy bayu lan kuy bàyyu lan lépp affaire de ancienneté la comme boog lan quoi fan nan où comment Talla Camara ban ban vidéo vidéo davant comme de su comme xam naa ni Facebook ko kii wala j'ai une erreur de manipulation. Hein Déglou Omar Omar Omar un con un imbécile comme ça hein? un mère comme ça imbécile nena waouh, ma chemin bi string Touba le gourfal. Y'a yaa mën a kan la sa la sante? tantôt ne léegi xanaa da ngeen ne góor yàlla faal wala góor faal yàlla yaa mën a fen tu tu mens eh wop daa mel ni sama gars yi déclenché ne Thank you. What happened? What? Uh, uh, uh, uh, uh. what happened? Karamen halen Come on. Hey! Hey! Fuck you! Get the fuck out of here! Imbecile. Dagstandaya niwa nga da ngay daw nga dof wala lan nee naa nga bàyyi ndeyam yi come on come on rider. hurry up come on said what I told you stop doing your shit why you always fighting huh who you think you are huh why you always fighting? You are stupid or what? Get the fuck move. Move. Eh, no there. Other way. Go. Go. Asshole. Ah, you come fight with me. No one bomb around. Eh, move. Move. Please, come on. Good job inside. Cookie, come on. Eh, you move, you move, you move. Get the fuck move. You're just fighting. Come on. Go, down. Maar hij Jay Golude, sommige gaat je man vallen, maar hem zeggen, nu geef rechts. bu mag bi day day day xeex ak bu ndaw bi rek pif da koy soog miin quoi xamu ko day soog a ñëw fi moo tax da koy siis da koy siis voilà ah, Pape Gueye euh, am naa appel yu ma gis sànq mais whatsapp su ma ko décroché day arrêté sama live woo ma messenger whatsapp su ma ko décroché rek then stop live parce que téléphone bi may live et mom la sama whatsapp nek. Ah. whatsapp du ma ko décroché su live parce que they day stop day stop sama live quoi euh, xaaral ma ñëw ndànk Papa Pape Eh, yeah yeah yeah yeah yeah Pape Gueye euh, xaaral ma may la dara yow may ma tuuti ma tuuti ma pareeg Pape Gueye mii ma may ko ñaar lu lu tuuti te bëriwul Pape Gueye nga ne yàlla naa accident ah garaawul accident moom jommul doomu aadama parce que kenn du ne jamais jamais quoi yàlla na yàlla suturaal bépp doomu aadama mais accident boobu nga may ñaanal noonu y a pas longtemps am ngeen seen benn maara bu si yàllaahoog lépp njabootam yëpp yàlla romb fa ne leen piw billaahi mawti rusu si dara xoolu si lenn nag déggoo ma de daf ko ñuus ñuusaale njaboot gi tout le monde ngeen toog fi di jooy dama nga wax accident boobu dégg nga jaajëf asalaamaaleykum siyaar naa la yow si loo ne waaleykum salaam Moussa maa ngi maa ngi si live bi ah yaa ngi si alentour live bi de yaa ngi si ruq ok taalibe yi ñu may dégg bu baax. ah taalibe yi ñoo ngi noonu de ñoo ngi waajal saaga yi ñeneen ñaa ngi sànni kër amul problème nañu saaga mais dama bëgg rek ñu xam ne kii di wax ak yéen seen ancien mbokk esclave mooy wax ak yéen nii ku bokkoon ci seen tarixa yi ku leen gënoon réer ku leen gënoon gëm yoon bi ku leen gënoon mën a défendre yoon bi moo nekk nii di wax ak yéen ma bëgg ngeen dégloo ma ak xel te bañ ma dégloo xol Sénégal yeewu leen sëriñ si amaluñ leen njëriñ yéen a ngi noonu gis mu sëriñ Bass Abdou Khadir génn keroog daal di ne ñu dee ci géej bi ñëpp dañoo xaru guddi gi muy wax loolu même pas quelques heures marché Ocass ba ca Touba tàq. est-ce que. waa ani sëriñ Touba boobu. boobu duñ ko wax de duñ ko wax si kaw boobu duñ koy nëbb si suuf. non loolu coïncidence bu garaaw la Moussa parce que moom dafa génn ci veille bi ne ñi dee ci géej bi ñëpp dañoo xaru. ci guddi marché Ocass tàkk ñu ne dédé démb tamit am benen marché encore bu takkat nee naa la ba sonn yàlla yàlla c'est que yàlla léegi ay ma gaaw comme melax xaaratul ba ma xiyaam ay ni léegi la koy lijjanti ñëw toog nit ñee fi nekk di reewantalu rek. exactement. taalibe yi nag yéen situation bii nii nii nii nii am bu ngeen profité wul ubbi ci seen bët yi yeew te xam ne sëriñ si seen bopp lañ fi nekkal ngeen dem jaamu ji yàlla bàyyi bokkaale bi ngeen nekkee. ñii dañ leen di réeral ku mel ni Muntaxa da leen di réeral Muntaxa xamul yàlla xamul diine parce que ñàkk xam yàlla mooy tax muy toog naan yawmal xiyaam may romb yàlla romb yonent bi dem ci sëñ Tuuba ñàkk xam yàlla moo tax muy toog naan sëriñ bi malaaka yabu ko yàlla yabu ko yonent yabu ko kon kooku xam ngeen ne moo leen gën a réer su dëgg yeewu leen àdduna àdduna du kër àdduna du kër yalla waccew len fi pour ngeen di top ay nit yalla daf len hmm. wacc pour ngeen jaamu ko hmm. bay len bokale yalla bi bi ngeen dalé top serign ci ba tay ben njeriñ amaluñ len ko hmm. yéen ngi nonu délé ci géej gi ñu taxaw genn na ñu fa dé ñep safara lañ jëm yow bas yow mom da nga jangul yow amo xam-xam yow waro di wax parce que bo jangone do musa wax ñoo ñu non dañuy xaru en plus yen seen intérêt rek ngeen xam yeen fi ni fi la coronavirus am lo leen wax ngeen na talibé yëpp nañ ñew magal si bu ñuy dee sax nañu dee mais nañ ñëw màggal si te pourtant yàlla yonent bi dafa wax fépp fu mbas am bu fa kenn dem te bu fa kenn jóge mais comme que màggal Touba ay milliards ngeen ciy racon euh, ngeen ciy récolté buggoo leen woon raté occasion boobu ngeen nax taalibe fexe ba ñu ñëw màggal si mm-hmm. te boobu noonu loolu moo gënoon nekk xaru yéen a ngi noonu Touba xolal Moussa mm-hmm. lakk gi fa am ni doy doy lakk yi ñaari oto sapeur pompier kese moo am Touba ba Touba jeex bu ngeen jógee jël ay milliards def ko ci ay juma. ah ah ah maa xam may ma ñaari oto sapeur pompier ok ba ñaata Rolls Royce moo am biir Touba. Rolls Royce ak Chrysler kenn xamul kenn xamul kenn de valeur yi mbake mbàkke di dawal. jasneer yu cher ñuy dawal salon trente millions chambre à coucher vingt cinq millions. te seen dëkk bi amul sax opi non. <laughs> ah my goodness. <laughs> non waay taalibe yeewu oh, ñi foog ñi xool Moussa ñi ñi ñi dañoo jëre yërëm dañoo xamul rek. dañoo réer ndeysaan xam nga lu gën a bon yonent bi dafa waxoon lu mu gën a ragal ci xeetam mooy mm-hmm. imaam yi jàng ba pare di réeralaate mm-hmm. tey nag loolu ñu ngi nii dëkk a gis Sénégal parce que yaa gis kuy kuy mbubboo kilifa diine bu mm-hmm. waxee rek noo loxo daal di dar gémmiñ subhanallah yeewu leen yeewu leen yeewu leen ngeen defar seen avenir ngeen jël seen responsabilité ngeen bàyyi sëriñ si ngeen dem jaamu ji yàlla tarixa yi amul njëriñ tarixa yi benn njëriñ amaluñ leen ko yéen a gën a dellu ginnaaw si Sénégal vingt cinquième pays le plus pauvre au monde. Eh, mais nag c'est normal parce que da ngeen jël. Hmm? te yàgg nañ si position bi te koo jóge. waaw. buñ si cañee yàgg depuis boobu ba tey loo wax ne la vingt cinquième. non mais c'est grave li nekk Sénégal c'est grave wallahi c'est grave. amuñu jom daal jom bi daw na de jom daal daw na Sénégal. jom daw non mais man mais dama waaru ay sëriñ yuy wuyoo iPhone 11 Pro.

Eh, oh là là ah moo ñoom daal dañuy gëmloo taalibe bi yow àdduna amul solo. Hmm. de liggéey rek di joxe. taalibe bi torox amoo kër gu baax. Hmm. nga gis Sénégal nga gis ko am cinquante ans continuer nekk taalibe ba tey ba pare dëkk kër yaayam ak kër papam lu mu fayee néeg sax amu ko. Hmm. lu mu liggéey joxe ko. yéen a ngi noonu tey lakkale gis nga tey commerçant yooyu noonu lakkale. ñoom ñoo nar subir les conséquences. billahi te ñooy waajal addiyeewu déwén bi defaraat màggal bi. can merci te bu addiyee jotee ñoom ñooy dem joxe ji addiye bi ñii ñoo war a yeewu ñii ñoo war a yeewu tarixa du diine tarixa bokkul si diine yàlla toppaloowu leen nit yàlla santu leen ngeen jox ngeen dem jébbal seen bopp ay nit yow ki nga jébbal sa bopp àdduna ak àllaaxira àdduna bii rek yaa ngi am ay problème mënu la ko fajal mënu la mënu la fajal benn problème. serigne bi mom bu amé dom sax xar bi koy ngénte yow ya koy jënd ak sa xaalis yaay baas yaay raxas na bi yaay bu douci yow lepp ya koy def ba ah, nga jël aduna joxe ko mo lay rambu aduna ak alakhirah mais pour l'instant aduna bu mu la wala rambu yow ya koy rambu yow ya koy defal lepp yaay fay dépense ya koy jox mu lek su febaré ya koy yobbu ba kaw ba ci tuba bu tey woon maamam 32 ans fajj ko wat ko ya koy dundal te koko la wala rambu aduna ak alakhirah mais aduna mom commencé gul sax demagul de mais yow ya koy rambu affaire bi en fait dafa retourné ñun ñoo leen di jàngal ñoo leen ëpp diine ba pare ñun ñoo leen di dundal jooy na waar. jooy na la dund sëriñ moo amul njëriñ si boppam sëriñ ci boppam sëriñ sëriñ yaafuus la yow da ngay gis koo xam ne bu mu juddoo ba tey musta liggéey ku mel ni Bass Abdou Khadre il n'a rien foutu dans sa vie. Hmm? amul liggéey amul diplôme musta liggéey bu mu juddoo ba tey. ba pare il a des châteaux ba château la tabax fu mu jëlee alal boobu. ba pare di haste. ba xas jeunesse bi ngay xas. oh my god parce que Abdou Khare xam naa ne yaa ngi may dégg yow laay waxal yow jeunesse bi ngay xas naan dañoo xaru. Hmm? jeunesse bi ñoo la tane. ñoom au moins ay bañkat lañu ñu ngi xëy di liggéey yow liggéeyoo xëyoo gontoo yow da ngay tàllal loxo rek ñu lay jox. ba pare yaa ngi noonu yow neuf neuf hectares yi nga sàcc jaayee ko cinq milliards loolu rek rek la woon na emploi des jeunes. mais Sénégal moo nekk réewu naafeq kenn du wax dëgg. da ngay gis nag moom xool sorti bi mu def ni yenn nit ñi gis naa sa ñoo xam ne xaw nañ ko tontu mais da ngay lire ci seen visage que ñii lu ñuy wax sax ñemewu ñemewuñ ko tellement que tarixa murid ils ont pris le pays en otage ma ma ma laaj la dara xam nga ba ngay dégg seen projet yi ñuy cotiser di koloo koloo ba léegi ñuy def xam nga toujours projet looy dégg Touba sa kanam ay tu affaire juma ay affaire kii mais est-ce que dégg nga leen si seen projet yi ñu teg si projet bi jàppale waa Touba si wàllum liggéey si wàllum réinsertion ah, wàllum dara. est-ce que ah, ma jox la réponse bi lan moo tax duñu def loolu ma jox la réponse. xam ah. uh-huh. parce que bëgguñu nit ñi yeewu xam nañ ne. Hmm. bés bu ñu jàppalee jeunesse bi pour jeunesse bi am commencé am liggéey. commencé am xaalis hmm. dootuñ leen topp ñoom. Hmm. mais nit nag pour nga mun ko noot foog nga foog nga appauvrir ko. foog mu sonn Moussa ku sonn rek mooy dem di top nit. il faut jeunesse bi sonn nekk esclave pour mun leen topp mais bu jeunesse bi jëleen jëloon responsabilité am. c'est que Mahady man dama xamul ku la yar quoi ak loo doon lekk Mahady tu es trop mousse. Mahady yow li nga. Moussa man bul wax je suis trop mousse je man nii dañ ma tardel tarixa bi dafa ma ah, tardel pendant des années dama si juddu yaru ci Sénégal oh. danger la ah. ngi tardel doomu jàmbur yi. wallaahi billaahi comme yeewu nga nag comme yow ba ngay nelaw maa ngi a yemoon tëjuñu woon suñu ñaari bët yi danoo tëj benn bi di xim di xam nga pàccal benn bi quoi moo tax nu neex a yee mais ñeneen ñi nag danoo quoi. ñeneen ya ngi xarang de ñeneen gaa ya ngi xarang di di di wëlis xam nga xarang yooyu noonu ngay wëlis xar xar gaa ya ngi nelaw nelaw yu la ñuy nelaw lii nelaw yu forcé que xam nga lan la tam Sénégal dañu nax ci suñu histoire Sénégal li ñu judd ñoom ñu expliqué ñu ko ay Serigne Touba Alaaji Malick ñoom ils ont combattu pour pour samp fi l'islam ñoom ñoo tax tey Sénégal am jàmm Sénégal mm. amul jàmm l'absence la paix ne signifie pas l'absence de guerre c'est pas parce que ah, ay bal tàkku am na jàmm Sénégal amul jàmm jàmm amul Sénégal de li fa xew nii du jàmm ndaw ñi di génn di dee ci géej gi ay marché di lakk ay maire di feebar seen tànk yi di nëb amuñu lu ñu fajo di wasin si ay sareet mais sëriñ bi waaw jigéen ñi di wasin si ay sareet ci deux mille vingt ndox bu sell eau potable source de vie vingt et unième siècle waaw eau source de vie eau potable source de vie vingt unième siècle deux mille vingt waaw sama problème noonu di tabax ñu ngi noonu di tabax ay juma 22 milliards ay université xaw ma ñaata milliards yow amoo. collège eh, ban juma 22 milliards. sax baaxul. ban juma mooy 22 milliards. 53 milliards Masaalikul Jinaan. Masaalik dama kay xeex ba dugg boîte vocale 53 milliards. dama kay xeex ba sulli si Serigne Touba mu ñëw taxaw loolu amul ma dem te ñëw. ci réew mu voilà jumaa boobu ñuy tabax amul njëriñ parce que ñoom seen tarixa moo am ñoo xamante ne ni duñu julli yow lay dox di tabax jumaa te seen tarixa ngeen ne am ngeen am ñoo xam ne da ngeen ne yàlla da leen wàccee julli te loolu noonu ay fen la yonent bi nee na du jumaa sanctuaire Moussa même xoolal Moussa Muntaxa dafa toog mu ne Baay Faal seen ñàkk julli jagle la si ñoom te yonent bi moo ne bay na rajuli wal kufri tarku salaat mu ne diggante nit ki ak muy doon yéefeer mooy mu bàyyi julli Hmm. kon képp ku bàyyi julli yéeféer nga yow hmm. mun taxaa nga toog di dooleel bàyyi faale ci seen ñàkk julli li may wax nii ku ko weddi vidéo bi naa ko yónnee Moussa Camara mu teg ko si live bi live bi daay rek koy dég man duma leen sosal duma leen fenal dama leen xam hmm. maîtriser leen comme nu ma xamee sama loxo bii yeewu leen ngeen bàyyi sëriñ si Moussa maa lay bàyyi nga continuer dégg nga jaajëf merci beaucoup lu wër lu wër vidéo boobu muy wax sax maa ngeeg moom lu wër te du looloo gën a tuuti lu si doomaraam bi wax lu wër léegi nag moom comme nu nga ko waxee rek affaire yi mooy gars yi dañoo bëgg a nelawal dañoo bëgg a nelawal bëgg a dox suñu bopp yi bëgg fay nekk di konkonlu si kaw nit ñi mouridisme égal à doomaraame doomaraame si côté gan mooy lan duñ lu wax mukk loo leen laaj wala duñ la tontu mukk si loo leen laaj yaa un dooma moom fi jàll sànq kon nu ma ko waxee rek moo ngi naan ay yàlla nga accidenté yàlla nga dee ma ne ko ay waay wallaay soo leen compté woon yéen màggalu Tuuba aller retour ñaata accident ngeen di compté ñaata nit ngeen di dee doo musa toog yow ba ngay naan ay nit yàlla nga accident yéen a ngi accident boobu ba léegi di dee doyu leen beneen wax bi encore ñaare bi moom mooy lan ma waxaat ko ko encore ma ne ko yow gis nga sa waaye seen kilifa yoon na ngeen wax naa ay nitu yàlla leen ba ko yàlla di yónnee mawti ruusu dara suuru si dara daf ko yónnee mawti mu ñëw faat ko mook njaboot gi yëpp jàllale ko benn yoon comme boog nag yow moom noonu toog tamit di wax yow moom ma naa yal na la yàlla suturaal yal na la yàlla sàmm parce que live bi su jeexee nga coupé sa live génn tamit dox xamoo su lan ngay dem xamoo su lay dugg xamoo su lay teg mooy loolu léegi nag ma daal di continuer wax gi mooy tey Faatuma Mbay bokkuloo Faatuma Mbay tey bokkuloo tey da ngay toog déglu da ngay yow tey da ngay xaar da ngay toog na le boobu ba léegi maa ngi lay gis ngay sànni bëgg attirer attention tey da ngay xaar léegi nu daal di ko ci wax gi moom mooy comme ni ngeen déggee maa xari nu mu waxee lu mu leen wax dafa leer mais léegi wax gi moom mooy tey jii nii Sénégal loo fi naroon a yëkkati tegaat ko si taabi wala loo fi naroon wax ñu jël wëlbatu ko dugal ko si ay waxum naan la amoo diine wala amoo islam te wax gi nii nuy wax fii nii tey wax gi nuy wax fay nii nii nii tey yëpp mooy lan waxu diine waxu islam kaay leen nu leeral diine gi kaay leen nu wax si islam bi lii lan si islam wax lii lan la si diine wax ah ngeen bëgg a jël wax gi ngeen tourné ko ngeen daal ko jël dugal ko si ay wax yoo xam ne mooy lool léegi tey nu andiwaat leen daal leen laaj ne ni léegi bo bon Serigne talaa su ñëwee ba toog mu jàkkaarloo gaay daa di ne su duggoon daa di gis yàlla toog gis Serigne Touba toog mu romb yàlla dem si Serigne Touba qu'est-ce qu'il veut dire par là allez ngeen firil nu wax ki ak wax googu noonu waxu lan la. expliquez nu xanaa boobaa da ngeen nuy saagawaat wala da ngeen di ñëwaat génnaat beneen affaire wala lan la misaal la wala dégg-déggin la laaj. dañoo bëgg ngeen expliquer nous léegi su ngeen mënulee expliquer lu nu yàlla gi wax lu alquran wax lu leen laaj gens c'est ni propre dire lu ngeen di wax firil leen ko comme ça nous nu mën comprendre expliquez nous comme que yëpp ngeen nu ba foofu yëpp ngeen nu ba à un point bon xam ne ni que vous vous foutez de notre gueule expliquez nous le foutage de gueule qu'est-ce que ça veut dire expliquez-nous on s'explique en tant que nit ñi yéen a gën a xam ñun xamuñu ngeen xamal nu ngeen du mën a dugg comprendre maanaam vous vous avez tout compris yéen a xam lépp vous avez tout fait léegi xamal leen wax bu bu gën a ndaw googu noonu su ma duggoon si néeg fekk fii yàlla ngeen gis comme yéen tamit su ngeen amoon yàlla ah ngeen romb fi Serigne Touba ngeen di jëm comme bokk lu ngeen def si yoonu yàlla gi te islam nekk yoonu yalla. yéen nu dem ba ne leen jàkk néegu la. jumaa néegu yàlla lu tax ngeen di xëccoo di tabax ay juma te pare woo leen dem si néegu yàlla gi pare goo leen dem si yàlla si Serigne Touba ngeen di jëm Serigne Touba ana ay néegam xanaa du néeg buñ ko tëjoon pendant ba muy nekk njaareen isolation dem leen wala néeg bu mu tëju woon ak gaynde bi wala néeg bu ne tëjoon ak fu lu tax tabaxoo leen ay fuur si loolu lañ ko tëjoon lu tax tabaxoo leen ay néegu gaynde su nekkee loolu si fa Serigne Touba def leen comme ngeen mais néeg boobu noonu moom ngeen di kii di xëccoo di jooy ki di wax néegu yàlla la dama leen di laaj da di xëccoo vous faites la gueule wax ki nangam la la la lii ah jàkka jumaa néegu yàlla la lépp luñ fay def jaamu yàlla la yéen nag seen xalif nee na su duggoon gis yàlla mu toog yu yonente gi toog mu romb yàlla dem si kii kay yàlla toog Serigne Touba toog mu romb yàlla dem si Serigne Touba. gom lu ngeen di wut ak këram lu ngeen di def ak i néegam mu jàkk yeeg jumaa yi ngeen di xëccoo di si def ay milliards di xaw comme léegi yéen lu ngeen di def fii lu ngeen di def fii ana néegu Serigne Touba pourquoi du ngeen tabax ay néegu Serigne Touba ngeen di tabax ay néegu yàlla ou bien c'est de là où moo tax léegi comme que Serigne Touba si néegam la dee ba nu suul ko fa c'est de là où ça su ngeen di tabax ay jàkk ngeen fay suul ay nit parce que loolu tamit j'en ai des sources hein looloo tax ngeen jël d'abord Touba def ko cimetière jàkk jumaa bi def ko cimetière ba pare Masaalikul Jinaan ba ngeen koy tabax da ngeen suul ay xale dégg naa juróomi xale xaw ma juróom benn xale yu ndaw suul nañ ko si suuf Masaalikul Jinaan te loolu ñu dëkk biir Colobane ñoo ma ko firndeel nag donc ni ñi si ay néew la ñuy julli mbete xërëm incantation, secte. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Yalla, du ay Yala, Yalla, du ay Yala, Yalla, du ay fo. ñetti karim du ay aussi respectons-nous on a qu'à se respecter wax ki dina leer nee naa leen waa par A par B ou par C Murtada va venir s'excuser il va venir s'excuser quant au point que billahi jàmm gi nee naa la na dee sax suba mu xoon ku koy ñaanal su dee woon suba sax du am ñaan billahi léegi yooyu sa jeex na fi de nekk fi dooma xaraam ba pare deenu naa la wa yal na ko yàlla yërëm yal non yal na yàlla saaf sa ndey genre xolal tanoor jien yi yooyu noonu rom yàllaa ngi saaf la fa ndeyam en attendant mu ñasa si topp Moustapha ñas pare ñu ñëw si say say say dooma xaraam la benn par benn non mënul ne nekk fii ni kañ nit ñi nafsu nekk fii def lu leen neex yàq nday dëkk bi kookoolu ne ba pare dee nu bëgg la ñaanal naa fekk hypocrite naa fekk hypocrite naa fekk hypocrite du leen du xañ suñu bakkan kañ suñu nafsu def fi eh, teynu fi ba pare denu ñaanal len xorom sen ngeen di ak mom fa yalla ngeen naan ma hikki yo yo fi jeex yo fi jeex kay la la wax no ya na ngeen baax rek ah ah ah Ah, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wiyai. Waxu caga clandestin, waxu vrai dofa gini. Wiyai. Waaw, waaw. De, ah. Dafay firi ni. Dafay firi ne. sering be ko taxa ag si yalla. dafay firi sant bu baax ki ko tax a àgg sa yàlla yow sa xam-xam soriwul vraiment waaw waaw wa léegi hara ma expliquer leen benn affaire wax gi numa koy dege moy exemple bu gëna ndaw waxu mbaam ma ngi encore da nga bëgg gis Macky Sall hein legi tay ji ni Amadou Sall wa ila mbindanu Macky Sall jappala la yow tay ji ni ba nga dugg palais legi yow nga dugg ba bir palais ba jàkkaarloog Macky Sall tu n'as rien trouvé de bon à faire mooy léegi fi gis romb fi Macky Sall ku nga yaakaaroon ak kii lépp mu ñëw defal sa situation kii dem ba si ku la yóbbu ku may mbindaan bu la dugaloon si biir palais bi ba nga gis ko ñëw toog naan moom ngay sant quoi moom ngay àndal parce que moom prouver na a ni que mën na dugal palais comme léegi yow li nga ñëwoon wuti si biir palais bi amatul sens maanaam ni ko eh, da da da waxu dof waxu dof waxu dof moo la andi fa yàlla xaara yow yegg si nga yàllaa ngi nii moo ngi nii yàlla nga doon wër léegi moo ngi nii léegi yow nga rombaat ko fi ku la fi ànd lu taxone mom nga dem sonal ko ba andi la fi lu nga bëggoon ba mu andi la fi comme que yow bëggoo woon yàlla parce que léegi moo ngi nii sa kanam nga ne noo da nga koy romb léegi dellu ah ah man dama la bëgg yaa tax ma ñëw sa kër nga invité ma sa kër ma ñëw seet la ma wala yem sama place foo ma yem loo ma ñëw kii mais ma dugg sa kër comme que sa raq bi nag moom laa yónni woon ba muy ñëw ne ko eh, eh ana ana ana ana Fatima Fatima Ngale hein waaye moo ngi ko kii nangam. waa booy mën naa ñëwee ana paa nekk waa kan dem kan dem su ñëwee ki mën a ma ma ñëw ba dugg si kër gis Fatima ngi nii au lieu ma lijjanti sama bopp si Fatima lu ma fa tax a ñëw kii ma ram Fatima dem si booy bi nekk booy merci waay yow kay yaa tax ma dugg si gaale gi booy yow su dul woon yow tey du ma gis Fatima comme kay man ko bàyyi foofu na maa ngi dem jàpp si booy bi yow mais yaay gërëyee quoi booy noo defee lii booy comme yow réussir nga maa andi fii ki nangam au ma dem dóor benn coup bu gaaw si Fatima dem xam nga def samay affaire balaa paa bee yegg si foofu laay topp booy bi a ah, booy nii paa bi jëkk-jëkk rek eh, ah, ah waxu dof waxu dof waxu dof eh waxu dof non non non wax nga dëgg Vanessa ba koy may bës mais wax gi moo may boppam bës nag c'est am na ay waxu dof yoo xam ne Vanessa am na waxu dof yoo xam ne mooy may seen bopp bës quoi c'est que wax gi sais mayal buzz ko comme nous day mais dafa wax je wax deug fa yal wax bi rek buzz la wax ge ko may buzz de parce que waxu dof man la Fatima man dama dugg Facebook am ba Je suis c'est une fille retardée nit ne xalam c'est pas à 100%. elle n'est pas c'est comme si c'est quelqu'un ko souvent day PR yeah yeah I'm ready if you want we go Okay, let me take my ID. We're going. Huh? Yeah, I said, let me take my ID. We're going. Right. Take my ID, my credit card, and everything is gone. Take my bag. What is my credit card? Where I leave again that credit card? Come on, guys. comme lu ma koy waxee rek Fatima Mbaye mom. Mom, si i moom moo amee ay waxu buzz quoi Fatima Mbaye moom elle est elle est elle moom dégg na lu kenn déggul moom moo dégg lu kenn déggul wax lu kenn comprendre tey yàlla al na nu yàlla suturaal rek al na nu yàlla suturaal en attendant nu ñaanalante nu ñaanalante ma ñëw dem lijjanti samay business am na ay affaire yu ma wala ñëw dem lijjanti léegi Boy, baby bugger number four, you mukha sama kaddan titte. Tamam, VPS kasala, PS yok. Ne kuka. Ah, merci mama. Merci mama, nee na waa yow moom yaa fi waxul dara. Pare ko waaw ba léegi de. yee man soo ma dégloo ma def si yow xam-xam xaa ma ñëw avancé man balaa nga may xëm-xëm xaa ma ñëw avancé baal ma xaar ma ñëw ah, bloqué la léegi sax balaa ngay xëm-xëmal sama page bi on n'est pas obligé va jouer ailleurs pam bloqué voilà am na yenn wax yi moom comme que dañuy génn gaam vous croyez que c'est une place pour venir se s'amuser ou rigoler on vous bloque doucement balaa ngeen fi andi ay waxu xam-xam what is my damn ID man What is sama gars yi def noonu ba si beneen waxtaan beneen live beneen vidéo ñu daal di ñëw continuer live bi daal di waxtaan bi nekk sa affaire nee na ana Fatima Fatima radier Fatima yàlla jouer radier. Elle est allée jouer ailleurs, quoi. Parce qu'à un moment, elle ne veut pas être sauvée. Elle veut venir s'amuser. Je n'ai pas le temps de m'amuser, quoi. Nous devons, nous sommes gars, peace, love and harmony, basi benen live. Benen ki, yal na len yalla sam, yal y len yalla ar, yal y len yalla protéger, sam famille bi, sam job, bi, sam domi, sam tout, si barke Seydina Mohamed. Nous devons, basi benen waxtam. Ciao, peace and love.